ak yéen bien vrai que bu ñuy wax ci wàllum parrainage muy euh, Déthié Fall ak Boubacar Camara joxe ngeen le minimum de parrain même bu fekkente ne ni am na yoo leen war a euh, régulariser docteur parrainage bi fi mu ne nii jur na coow lu jëm ci doublon externe yi euh, jàpp fichier pare fichier électoral bi ba ci li nga xamante ni moo di clé USB yi coow li bari na yéen déjà ban ban gis-gis ngeen am ci mbir mi. merci beaucoup gis-gis biñ ci am au niveau du PRP. mooy li Sénégal yi yëpp constaté li Sénégal yi constaté mooy que parenage bi au de d'être une solution c'est un problème c'est un problème parce que parenage bi euh, mu ngi euh, salfaañe démocratie Sénégal euh, ci côté yu bëri boo xoolee problème yi ci xew yëpp mënatuñu wax tey ne que parrainage c'est pour filtre les candidats permettre à ce que euh, les candidats les plus représentatifs ñu dem élection euh, déjà point boobu c'est déjà euh, battu en brèche pourquoi parce que boo xoolee système de tirage bi tirage au sort bi boo refee tirage au sort nga jël un candidat très représentatif qui a une expérience politique qui a un appareil politique nga def tirage mu retrouvé wu à la trentième place à la quatre-vingtième place nga jël beneen candidat boo xam ne xëy na amul benn expérience ci politique amul appareil politique mu nekk à la première place loolu déjà sa pose un problème parce que déjà le candidat qui a un appareil politique euh, qui a une expérience qui a un vécu politique et qui se retrouve à la quatre-vingtième place kooku il y a de très fortes chances que mu ay doublons par rapport ak koo xam ne il est à la première deuxième place alors qu'il n'a euh, aucune expérience politique déjà loolu c'est un problème donc parrainage bi nekkatul filtre pour permettre aux candidats les plus représentatifs d'aller aux élections mais c'est un blocage pour les candidats des candidats représentatifs connus par tous les Sénégalais qui ont abattu un travail extraordinaire ñu éliminer leen on risque de les éliminer à cause du parrainage yeneen problème yi man listé naa ci problème yu bëri euh, à tout euh, à les niveaux hein ay électeurs yoo xam ne nekkuñu ci fichier électoral bi euh, conseil constitutionnel se permet d'utiliser un fichier boo xam ne des électeurs qui existent dans la réalité je vous ai entendu am na électeur exemple yu ngeen joxe koo xam ne il a voté euh, aux élections législatives il vient euh, au conseil constitutionnel ñu nekko ko yow nekkoo ci fichier électoral bi loolu problème la loolu laa doon wax léegi Diouf ñu nekkee en salle ma ne ko comment peut-on donner des fiches de parrainage en un candidat candidat boobu def ay parrainage am ñëw conseil constitutionnel nga ne ko yow nekkoo ci fichier électoral bi alors que jox nga ko ay fiche de parenage te dañu ne fiche de parrainage balaa nga koy am il faut d'abord nga nekk ci fichier électoral bi voilà une incohérence boo xam ne on ne peut pas on justifier mënoo ko expliquer Sénégalais yi c'est impossible euh, beneen problème bi wax naa ko sànq les doublons doublons yi ça dépend de la position après le tirage maanaam te chance de passer les chances de passer pour un candidat dépendent de sa position dans après le tirage da ngay gis koo xam ne il est à la bi am na exemple koo xam ne il est à la trentième position mu am huit mille et quelques doublons am keneen koo xam ne il est à peu près à la même place au moins de quatre cinq places du ma citer kenn parce que aussi euh, pour man opposition bi euh, nous devons tous être solidaires pour combattre le régime euh, beneen candidat boo xam ne wul trentième place mais zéro doublon lay am du am benn doublon du am benn doublon. maanaam daal ñi njëkk a jàll ñoo am chance. ñi njëkk a jàll moo am chance. loolu ñoom Boubacar Camara. absolument loolu euh, pro <laughs> non pas c'est pas bon euh, je parle pas de Boubacar Camara. waaw bon euh, moi je il a abattu un travail bon que c'est quelqu'un qui a abattu un travail que tous les Sénégalais ont ont vu sur le terrain. am na beneen incohérence ci ci ci. ci fichier ci ci ci processus bi ci au niveau du conseil constitutionnel loo xam ne Sénégalais yëpp a ko constaté ay candidats yoo xam ne on se pose des questions par où ils sont passés euh, pour pour pour pour valider leur parrainage loolu sénégalais yaa ngi posé wu ay questions. ah bon comme ça euh, parce que ñu fi ah, ma tour ah. du ma tour mais am na des candidats yoo xam ne on peut les considérer comme étant des candidats sélectionnés des candidats sélectionnés maanaam des candidats yoo xam ne quel que soit alpha c'était prévu que bu ñu ñëwee conseil constitutionnel dañuy jàll. loolu sénégalais yi constaté nañ ko. mais mais foog nga foog tamit bu fekkee genre wax genre affirmation yi nga wax tur wala nga joxe. ay problème mais soo waxee nii rek. loolu pour man loolu amul précision. da ngay ngay préciser par exemple tel candidat. Mm, mm. il a fait ça euh. a fait ça mm. alors que conseil constitutionnel bàyyi na ko mu jaar mais mënuloo ne ñëw bon dem nga conseil conseil constitutionnel am na candidat yoo xam ne c'était prévisible que dañuy jaar. sauf que candidat yi jàll yëpp xam nañ leen. non non non li may wax dama ko basé ci ay constat constat yoo xam ne Sénégal yi ñoo ko def Sénégal yi ñoo def. constat non bu wax sénégalais yan sénégalais. Euh, euh, non attendez si vous sénégalais non en fait boo faut pas que. candidat yooyu boo xoolee may ma rek tuuti. non mais li ma wax très facile quoi. ñëw ni sénégalais yi ñoom ñoo wax mais yan sénégalais man par exemple je suis je fais partie des sénégalais je l'ai je l'ai pas euh, dit. tout le monde sait vous êtes journaliste je suis universitaire je travaille un peu dans le domaine de la communication. alors Pape mooy candidat yooyu. le Sénégalais se posent des questions fan la ñuy jaar ba ba ba am parrainage je les appelle des candidats sélectionnés. est-ce que ou bien des candidats yoo xam ne ils ont fait un passage en force. parce que malgré leur position ils ont validé le parrainage avec zéro doublon pendant dans le même temps nga gis candidat boo xam ne à peu près il la même position il a plus de huit mille doublons. non loolu ay incohérence amul benn amul benn euh, à part Boubacar Camara bi njëkk a jàll candidat boo xamante ni ñëw nga conseil constitutionnel. Boubacar Camara est bien placé dans le dans première position la mais dama ne. ne am na parrainage yoo xam jàll nañ sans doublon ñeneen ñi si des ku jàll tamit am nga ay doublon ñeneen ñi si des am nañu ay doublon. sauf que non je sauf que en fait que doublon yi dañ ko considéré euh, parce que am na minimum break alors ce qu'on va faire encore une fois Pape bàyyi ko mu terminer s'il vous plaît. bàyyi qui ne se sont pas déclarés officiellement publiquement pour dire que nous appartenons à la mouvance présidentielle nous considérons que ay candidats yoo yoo xam ne ils sont dans l'opposition nous avons des préjugés favorables pour ces candidats man li may wax ay incohérence la yoo xam ne dañ ko constater ci ci ci ci ci ci euh, fichier électoral ci conseil au niveau du conseil constitutionnel dans le processus électoral loolu laay wax incohérence yooyu lan lay indi ay doute sur le processus électoral man foofu laay waxee moo tax bëgguma citer candidat bëgguma stigmatiser. damay wax de façon générale pour montrer que pratique yooyu ak incohérence yooyu ñu noté ci processus électoral bi notamment au niveau du conseil constitutionnel day indi ay doute sur le processus électoral foofu lay waxee. bëgguma stigmatiser benn candidat parce que encore une fois bépp candidat boo xam ne déclaré woon ne ci mouvance présidentielle nga bokk dama considérer ne ci opposition nga bokk jusqu'à la preuve du je pense que. tous les candidats aujourd'hui qui ne sont pas dans la majorité présidentielle aspirent à un changement te yaakaar naa ne bu bu jotee dinañ retrouver wu pour combattre le régime en place foofu laay waxee